tey ñenn ci ay responsable commune bu Touba ak bu Mbacké ñoo dajaloo fii ngir fësal seen naqar bi ñu am ci parti APR ni muy doxe ci diggante Touba ak Mbacké seetlu nañ ne président de la République secrétaire national bu parti APR 2012 bi mu nekkee au pouvoir ba tey amul benn yoon boo xam ne parti APR bu département Mbacké am nañ audience présidence de la république ñu nekk ay responsables yoo xam ne ànd nañu ak président Macky Sall avant 2012 ba nëga ni liggéeyal ko ci dëkk bi diggante Touba ak Mbacké ak ci 16 communes yu composé département bi yëpp militants yi responsables yi kilifa yi population département Mbacké yëpp seede nañ coono yi nga xam ne sonn nañ ko ci ginnaaw président Macky ci biir parti APR ñoom ñooñu nga xam ne ñooy population bi di militants yi di sympathisants yi di kilifa diine yi nekk ci dëkk bi seede nañ tamit ne coono yuñ sonn ci président Macky ci ginnaawam reconnaissance ak yëg gi nga xam ne waroon na ko am ci njabootu politique am président Macky secretaire national parti APR amu ko ci njaboot googu loolu moo waral. loolu moo waral suñu taxaw tey yàgg nañoo wax ne moom président de la république secretaire nationale parti APR nañu seen bopp mi ngi biir nekk ci biir ndox mi génnagul li muy nekk ci ndox mi génnagul terewul élection yi nga xam ne moom mujj am commune bu Touba jox nañ ko quarante deux mille voix l' ensemble du département totaliser nañ près de soixante dix mille voix kon participer nañ activement ci réélection ci 2019 parti APR fii ci département Mbacké seen priorité fi mu ne nii nekkul ci déclarer ay candidature pour élection locale seen priorité mooy réorganiser waat parti bi parti bi ñu xool nuñ ko tëggee ba nga xam ne buñ demee élection dinañ mën a gagner wante nii parti bi di doxee fii ci département Mbacké ci commune bu Touba ku ci dem élection doo doo gagner waxuma la ñàkk gañe wante boo moytuwut da nga gis sa électorat bi nga amoon gën a wàcc moo tax ñuy demander solennellement le président de la république ki nga xam ne moom mooy secretaire national bu APR mu wax ci situation bi nga xam ne moo nekk ci département Mbacké jël ñu audience ñu waxtaan ci mbiru parti bi mu wax ñu xalaatam ñu wax ko suñu xalaat organiser ko mën a dem élection li mu bëgg. ñu defal ko ko mooy gañal ko élection wante nii muy doxe képp ku ko wax ne ko ni parti bi di doxee ci diggante Touba ak Mbacké mën na ko gañeel ay waxi boppam lay wax te loolu moom la engagé mais ñëpp mën nañ seede ne ñi fi teew ak ñi fi teewul ñëpp ci nekk ci commune bu Touba ñi nga xam ne ñoo bokk APR ak sax ñi bokkul APR xam nañ ne APR ni muy doxee fii ci commune bi bu demee élection lam amoon ci voix du ko am est-ce que sax dina totaliser lu mat lu mat dix mille voix parce que ni muy doxee ku ko xam dëgg dëgg dëgg doo xalaat di wax ay candidature wala nga ci jëm dem élection. tey jii amuñ loo xam ne xam nañ ko ci parti bi. képp ku la wax xam na dara ci parti bi dalay wax lu ko neex rek wala muy sagu waaye ñetti nit ñeenti nit xëy na mën na ñoo xam li xew ci parti bi te loolu du organisation parti président mën naa am ay xarit ci dëkk bi ñuy xam li xew wante njabootu politique am nga xam ne yaakaaruñ ku dul moom ci politique moom la ñuy déglu ay xalaatam ci politique dégguñu ko gisuñu ko depuis 2014 wala avant 2014 ba léegi président dégguñu ko gisuñu ko bu fi dee ñëw sax visite privée lañ ñuy wax duñ ko yëg duñ xam lu xew loolu moo waral tey ñu taxaw ne parti bi ni muy doxee faw mu taxaw mënul continuer li nga xam ne nag moom mooy am mooy fas nañ yéene taxaw wax président jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci parti bi moom la ñuy def nii bi nga xamee ne nii nii nga xam ne noonu lay doxee su fekkente ne continuer na amut lijjanti gi amul dañoo jàpp ne fësal suñu naqar war nañ koo mën a def ci diggante commune bu Touba département Mbacké ndax suñuy bokk suñuy militant ñi nga xam ne ay responsable lañ ñëpp àndandoo nañ seedeel ñu ne sonn nañ ci ginnaawam seedeel ñu ne amuñu reconnaissance kon ñun tamit war nañoo mën a taxaw woo leen ñu seede ne. ñun ñu ngi wax suñu naqar ci ki nga xam ne moo jiite suñu parti fas nañ yéene loolu beneen bi fas nañ yéene lii nga xam ne mooy élection yi di ñëw ñu organiser ko organisation boo xam ne dinañ mën a am ndam su fekkee nii lañ ko bàyyi ba élection ñëw dina am beneen taxawaay boo xam ne moom la ñuy taxaw ci élection yi yu bokkut ak nañ daan taxawee ci élection yi ñoo ngi sant président nag ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def ci Sénégal waaye suñu sañoon am na taxawaay yoo xam ne njabootu politique am gii nekk ci commune bu Touba département Mbacké du ñu fa àgg képp ku ci kilifa na nga ci wax ak moom ñu lijjanti ba nga xam ne yenn situation yi duñ ci àgg ci biir parti bi. comme ni ko suñu frère waxee nekk ay responsable yoo xam ne ci diggante Touba ak Mbacké ku ne xàmmee nañu ci parti bi depuis ñuy door ba léegi lépp luñ ci def ñoo ko àndandoo. damay wax ni ndam buñ ci am ñoo ko àndandoo li tax ma ni ndam mooy wax na ko ci biiri waxam électorat bi ñuy am fii ñun xeebuñu ko tàmm nañ nag di dégg suñu biir nopp ñu ne gagné leen Touba mais est-ce que tey nombre votant yi ñu am fii pour président ci Touba ak Mbacké am na commune yu mu gagné tey te amu ko am na département yu mu gagné te amu ko te nombre boobu mu fi am ay mille voix doon na loo xam ne man gëm naa ni su ko fi ñàkkoon. mën na indi jafe-jafe ci moom muy benn ñaareel bi si topp ñooñu nga xam ne ñoo dem rang si yi ba naaj bi tàng yendu fa ba ngoon voteel ko ñi nga xam ne ñoo wàccoon ci terrain bi liggéey loolu ñooy ñii fi taxaw tey ñoo soxla tey reconnaissance soxla tey ku wax ak ñoom soxla tey ku leen yëg soxla tey ku leen delloo seen àq ak seen yelleef ci parti bi ñu bokk ndax dafa neex kat ngay liggéeyal nit muy gis li ngay def waaw góor du dara waaye day yokku ngóora mille voix yooyu ñu am fii tey mille voix ñun xeebuñu ko parce que li tax xeebuñu ko tey ki nga xamante ni moo ko voté ñun ñoo dem ñoo dugg ci terrain bi ñoo ko campagne chaque jour nga gis nit taxaw ne la yow yaa tax ma dem rang voteel président Macky Sall nit kooku dem rang voteel président ngir sa jëmm yow sa jëmm jooju tey boo ci amul benn reconnaissance amul benn tey yëg buñ la yëg wala cër buñ la delloo du neex ci sa xol ñuy wax nag ne tey lañ gën a bokk APR tey lañ gën a bëgg parti bi tey lañ gën a nekk ci parti bi waaye dañoo nekk di ko liggéeyal depuis 2009 2010 ba fii ñuy waxee te gis ne boobu ba léegi liggéey bi dafa am sooxe ci ñun ñi nga xam ne ñooy taxaw di fesal suñu bopp ne ñoo fi nekkal APR di ko liggéeyal reconnaître ñu ci niñ ko mën a waxee parce que cër bi ñu am kenn delloowuñu ko liggéey bi ñu nekkoon di ko liggéeyal nag tey lañ ko gën a mën a def tey lañ gën a am yéene ji waaye nag dafa am loo xamante ni bu jotee dafa jot te dafa dañoo war a taxaw waqu muy lii ñuy woote ngir président gees wax ci ak ñun hmm. mu gees suñu wax ci ak ñun bu ñu mënee recevoir mu recevoir ñu lépp loo xamante ni gis na ni yoon la boo xam ne bu ca awee dina waxtaan ak responsable am yii ko fi nekkaloon doon ko liggéeyal démb ak bërki démb pare nañ pour toog ak moom waxtaan ci xool ban yoon la ñuy jël xool nan la ñuy def ba lépp lu ñu fi amoon ñu am lu ko ëpp parce que am na loo xamante ni man gëm naa ne ay naxante la ci moom ak ñenn ñi parce que tey ñàkkul ku taxaw ne ko Touba Gongo mais bu subaa Abdou Fatah wax ne ko li mu fi amoon day am lu gën a suufe loolu mm-hmm. te loolu nag bala ñu egg ñun ñi nga xam ne ñoo nekk di ko jàppale di ci sonn démb ak bërki démb li ñu fi amoon ñoo duggoon ci terrain bi di ko xeex ba am ko xeebuñu ko ay la li ñu fi amoon nañ ñu ko téel te reconnaîtral ñu ko xam ne kat ñun ay ndawam lañ ay responsable lañ yoo xam dañoo yàgg ci parti bi di ko jàppale di ko liggéeyal